del déglu del xool Feeling fi ma jaar yëpp te man sama yaay dama daan yeewu toog di ko làqatu parce que mënu ma ko jox cent franc yaa dama daan toog gis am yenn saa yi ay tabaski wala korite bu jot ni ñenn ñi nga xam ne dañ daan tëgg dañuy tëgg ñëw jox seen yaay sañse ñëw man mënuma jëndal suma bopp yére parce que moment boobu tëgg liggéeyuma ko xam bi ma njëkkee jot som boobu jooy naa ko ba ñibbi si kër gi dama ñëw rek song ko. som boobu ñaata la woon. waaw xawoon na moo xawoon na bari ci jamono boobu parce que mi ngi nekkoon defe naa trois cent mille la woon. ci ku toog ay at mun <laughs> fay ñu la 5000 xam nga day xaw a garaaw te pourtant sax ndeysaan mooy loolu mais bi ma ñëwee songu maire bi rek daal di ko koy jox na ko yaay am tey génnaal lii lañ ma fay mu xool ma rek sama roga ñi waddaat parce que lu ma dencoon suma xol la quoi ne man damaa war a ñëw di jouer ji di ñëw di jox suma yaay quoi donc loolu moom bokkoon na ci loo xamante ni bi ma njëkkee jot loolu neex na ma. Euh, ba pare itam première kii boobu ah, yeneen i succès toppaat na ci parce que bëggalaat nga maire bi rawatina sa première tukki bu mu lay gis ngay tukki. waaw boobu première voyage parce que voyage moom rejeté nañ ma suma juumul ay sept fois yoo xamante nii dama daan ànd ak ay mbooloo man su ma dugalee ñëpp la ñuy may man duñ ma may. dem naa bu benn moment man suma yaay man ku ma waxat waxu tukki du ma la faale quoi bàyyi ma joué sama jeu Ah. waaw waaw sama premier voyage man sax si sama jëmmi bopp sama yaay moom forcé na ma jugal dem aéroport parce que man grand bi ma war a njëkk a dugg yóbbu as bi ma nee sa visa génn na dama ko ne grand bu ma ko waxaat parce que gëw ko mu toog sama kër di naan ataay mu woo ma téléphone ay 14 heures na ma am nga rendez-vous aéroport 20 na la fa fekk man ba 18 heures 19 heures maa ngi toog sama buntu kër di naan ataay ak sama xarit. parce que gëmoo ko. parce que gëmoo ko sama yaay moom mu forcé jugal dem jugal dem mu jug sol trénik yoruma saak gàddu jëmbe noonu jël oto dem aéroport rek mu ñëw rek mu attaqué ma yow la xaar kërëb kërëb ba tey maa ngi reere loo yor an bagage ma ne ko waaye grand yow dem rek man lii <laughs> jox ko jëmbe bi ñu enregistré bu jox ma sam passeport maa ngi xool visa bi mais gaw ma ko dugg naa ba toog si avion bi gaw ma ko donc bi ma njëkkee <laughs> bi ma wàccee Omar wàcce dañu grand kon fi mooy Europe ah loolu la may kaañoowee moom ba léegi nii <laughs> ma ciy kaañoo ne fan ngeen doon dem boobu dañ doon dem Espagne après day jékki day jékki ba mu yàgg rek dama seex fii mooy Europe bu ne bu ñu gisantee nii daf may kaañoo lool quoi <laughs> parce que man boobu li ma doon imaginer par rapport ak sama gars yi bu nu musaan voyager ñëw fekk ma temps xam nga mu daan imaginer lu garaaw mu wàcc gis même nit yi asamaan si ji tim fee moo ne fii xam nga ma ne ko hmm. ah, lii de moo ko xamoo nii duma ma du ma sonn. ok ça que njëkk nga voyagé ci sa ay période yoo xamante ne bii ay période yi nga doon joué musiciens yi la avant sax ngay wër dëkk bi ak ñi nga xamante ne bii mooy waa PBS. si man voyagé naa lu bari avant muy dugg ak PBS parce que am na benn group bale bu tuddoon euh, bale jàmm voyagé naa ak moom ay dëkk yu bari en Europe. def ay festival festival folklore ba pare doog a ñëw doog a xamanteeg sax awati ban anecdote moo la gën a metti ci li nga xamante ni bi dund ko ko ci musique loo xam ne boo ko fàttalikoo quand même sa xol ja hmm. ci gën a metti dalewuma sax ci réew mi man li ma gën a metti ci musique Chili laa dem Chili Amérique du Nord falaa ànd ak presque ay dix neuf vingt personnes joué festival bi ba festival bi jeex ñépp daw ba des man tëggkat yi daw ak fecckat yeeg yëpp daw ba des man kese léegi deux jours dañu war a jóge Chili Santiago pour ñëw senegal bon grand bi na ma ndax dangay toogal fii comme ñëpp dem nañ yow toogal fii quoi nga liggéey man ko non man damay ñibbi grand man musicien la non sénégalais la mais <laughs> grand ma ne ko bàyyi ma mu ñibbi parce que man musique laa bëgg a def yaa ngi ne ma ok kon léegi deme incha allah midi nga jaar sama néeg ma ok la sa billet jox la sa xaalis ma ne ko amul problème ma dem tëdd nelaw. man midi hôtel bi fëgg ma na ma kii paas bi dafa jeex quoi maa ngi jaaxle nag ma ne ko jeex jàll jug dem song moom chambre bi mu nekk fëgg fëgg fëgg ba sonn dara sottiwul après ma wàcc ci réceptionniste bi daal di joxe ni numéro chambre bi pour ñu woote pour xam ndax mi ngi fii wala nekk ñoom ñuy defee noonu ma toog toog ba ay 17 ñoom ñu bi porte bi ñu naaw waa ji moom dem na cest yóbbu na sama xaalis benn bàyyi na ma foo xam ne dégguma li ñuy làkk xam nga Chili ñoom espagnol la ñuy wax ak euh, anglais tu vois anglais bi sax forul noonu yóbbu na sama xaalis te man li ma yoroon ci xaalis 1000 pesos laa yoroon ci gàttal moom 1000 pesos moom du dara bon man ni ba tey xëy na grand bi dafa dugg ci tawan bi di jënd ay bagage yooyu man xel mu dal moom laa ci am maay gaay wàcc ci óol bi nii toog seg sama jéembe ak valise yi di xaar mais bi nga xaaree nag bay vingt et xam ni kii moom doot nekkatul kuy ñëw téléphone am yëpp doxul après euh, recherche gars yi na ci hôtel bi na ma bu fekkee da ngay jël chambre nga war nga jël chambre wala da ngay nga évacuer fii parce que li ma yor mënul jënd café mënul jënd am ñaari hamburger bay jënd bay jël chambre you know ma toog toog toog toog xaw fu ma jëm mu jóg gàddu sama jëmbe daal di daal diri euh, valise bi dox ñu dox bu gis benn gaar rek mu dugg ci toog ci gaar boobu laa dugg toog ba mu leer mu jógaat diri ko waat dugg ci dëkk bi ba jotaat beneen gaar une semaine yoo xam ne ci mbedd mi laay fanaat parce que Seydina Mohamed une semaine mooy dox ba fu ma gisee fenn fu xawa kii rek ma teg gémb bi nii bokk valise bi tëdd nelaw. parce que boobu amoo paas bu la delloo si Sénégal amoo loo lekk jëm bu fekkoonte ni euh, bu fekkoon ni sax dégg nga làkk bi bu baax sax di nga xaw a tane et boobu man comprendre wu lu bëri. tu muy dox. dem naa ba xaalis bi ma yoroon ci PCS bi ay keek ak yi ñàkk fayda yooyu laa koy jaay parce que munu ma jënd lu rëy benn jour daal defe naa bi ma defee semaine beneen semaine bi si toog. semaine nga koy yee semaine ci mbedd mi rek laay fanaan yàlla xam na ko. bu ma demee ba benn moment ma gis euh, benn cabaret cabaret mooy comme genre fi gës foofu yu meloon. bar resto yooyu ma gis benn cabaret. ma demee ci cab ma xool dugg ci biir cabaret bi daal di jënd kafe daal di toog am benn groupe latino bu doon joué xam nga latino waaw benn groupe latino buy joué léegi donc bi ma toogee toog toog ci baar bi toog ci baar bi gars du joué du joué man maa yor jëmbe bi bii xel naan ma joué gàddul jëmbe bi dof doflu bii xel naan non non ñi xamoo leen ay tubaab lañu léegi euh, ma toog rek toog toog toog jékki-jékki rek takk sama fi tekki jëmbi bi jour boobu mën naa ni suma liggéey nday moo ma dimbali ak sama ak sama xam-xam ak amaana coono bi ma daj ci aar yàlla walluma foofu donc bi ma bi ma dajee jóge bee saagu jëmbe bi gàdd ko ma jékki-jékki rek jug rulle maa ngi tiit nag yi may roulé yëpp xaw naa tiit parce que maa ngi naan seenu jàmbur boo xamul ñëw rek duché damay roulé rek tubaab yëpp xool ma commencé ma tàccu waa ji way daal di may woo. roulé parce que maa ngi woon si seen ginnaaw. ma du gàddu jëmbe bi taxaw rek joué ñëpp gëstu ma après moom mu a ma naa ñëw. non ma liyaar ma ñëw may dox ñu may sànni ay xaalis whatever ñëw ba ci kaw scène bi joué ñu may ma xaalis bëri sax sànni maa xaalis yu bari ay peses yu bëri léegi bi ma paree waa ji daal na ma dama làkk na ma quoi ma daan na ko ay doon naaw mu daan na ni daal di liyaar daal di ok ma wàcc mu bul dem naa toog ma toog toog ba seen soirée bi jeex après mu ñëw daal di mooy wax euh, kan nga dal si laay liyaar expliqué ko parce que damay fort tuuti anglais. expliqué ko ni ki ma àndal daf ma fi bàyyi dem waree ba man xaw ma fu ma jëm kër groupe groupe boobu ma ànd ak ñoom dëkk biir Chili ñoom ci li même di ànd ak ñoom di dem ay La Serena di dem ay Santiago di ci ay kabare nekk ak ñoom ba yàlla may ma njëgu billet bu muy indi Sénégal te moment boobu bu ma wootee suñu kër sama yaay duma ko mun a wax coono yi may daj cest mu ma ko ne yaay man. yoruma xaw ma fu ma jëm donc damay jékki-jékki rek woote allo Cheikh ci loolu ne ma ne ko yaay maa ngi si jàmm waaye dama war a joué ji nii sax wax ak moom ton bu ko xaw a soulager su ma paree man nekkaat ci sama dajale. dajale ba yàlla may ma maam njëgu biyee ñooñu bugguñu woon sax mu jóge foofu parce que dem naa ba adopté ak ñoom bi may bi may ñëw Sénégal ñoom dama leen nëbbatu dama leen nëbbatu quoi dama leen nëbbatu loolu moom. du ma ko fàtte ba yàlla yi moom jaam ñi te li gën a doy waar ci affaire bi mooy ki ma ko def sénégalais la danaan dama ni ma ne ko maa ngi nii boobu laa ko gis boobu laa ko mujjee gis barke Cheikhul Khadim mais bon anyway c'est émouvant Doudou c'est vrai que man ci sama bopp a ngi euh, bët mu ngi taa parce dafa dafa metti ngay nettali loo xamante ne bi c'est émouvant man ci sama bopp sam touche sama caméraman mi ngi ko touché énormément donc anecdote bi nga xamante ne bi dund nga ko euh, ci euh, musique vraiment mu nekk loo xamante ne bi Cheikh Anta bokk na ci li gëna a metti ci sa euh, carrière j'ai les larmes aux je sens que yow aussi même tristesse boobu ngay dundu quand tu en tout cas les faits mu nekk lu metti mais nag ndokk bi nga amee talent parce que talent bi moo la ci moo la ci génn. loolu moom dama naan ginnaaw yàlla maa ngi koy wax sax ci biir wax suma liggéeyu ndey ak sama talent moo ma guidé parce que xam nga euh, tey génn ci dëkk boo xam ne xamoo du sa dëkk rek déjà coono la dëkk boo xam ne du sa dëkk ndax Sénégal fii foo taxaw daal de grado may ma toog fii ba suba mën naa ne. waaye fële moom leneen la ngay dund benn affaire boo xamante ni loolu yóbbuwu la fa yow da ngaa demoon pour liggéeyi pare dem bi donc loolu dafa <laughs> dafa nekk loo xam ne mënu ma ko fàtte ci ma dina ko parfois damay voyager nii sax moo tax loolu daf may dal ba bu ma rombee nit ci mbedd barki Seydina Mohamed dama yaram day daw parce que dama xam dama ko dund te xam nga loo dund bokkul ak loo dund yan saa yi ma jaar di dem jeu ji ak waale yenn saa yi bu ma jënd jënd jënd café bi ma gisee nit ñi toog ci trottoir bi automatiquement rek lay dafay ñëw sama kanam daf may daf may daf may touché quoi daf may moo tax man lu ma yor ñooñu ci mbedd mi dama leen koy jox parce que xam naa xam naa euh, maanaam li ci ne dafa metti yenn saa yi mën nga toog sax nit romb la waaw ak nam ko safee sañoo wax da ngay mais bon <laughs> yàlla bëri na sutura quoi.